asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada ñu ngi leen di ziar lu bari tey damaa ñëwoon pour def benn vidéo quiz ci argomento 21 euh, mooy euh, incidenti stradali e comportamenti in caso di incidente maanaam accident ci strada ak comportement yi nga xam ni moom la nit ki war a def euh, moom la nit ki war a am bu fekkee accident am na ñu def ci benn quiz su quarante demandes jëm ko expliquer xam naa ci quarante demande yi buñ ko buñ ci concentré bu baax comprendre ko. comme demande yi dañuy nuroo lu bari te demande ay demande am bariwu cent vingt neuf la euh, vraiment ku ci concentré wu rek euh, incha allah yi ci des doo kon ñu commencé ko demande bu njëkk bi Percorrendo un lungo tunnel lo traforo, in caso di formazione di lunghe file di veicoli, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza per scongiurare, in caso di incendio, il rapido propagarsi delle fiamme. mu ne bu fekkente ne danga nekk ci lungu tunnel ci tunnel bu gudd wala traforo traforo xeetu tunnel la in caso di formazione di lunghe file di veicoli maanaam foofu ay file de véhicule yu bari am fa maanaam oto yi bari fa lool mu xat lool def embouteillage est opportuno aumentare la distance di sicurezza mu ne dafay baax nga bàyyi distance bu baax bu yaatu sa diggante ak ki ne sa kanam per scongiurare in caso di incendio il rapido il rapido propagarsi della fiamme euh, mu ne distance boobu ngay bàyyi njëriñ li muy am mooy. bu fekkonte ne dafa am luy lakk ci biir tàkk-tàkk ci biir tunnel bi yow nga mën a fexe ba dëpp ba nga xam ne da nga mën a fexe ba génn foofu te du am problème mais boo séeree oto bi ne sa kanam bu dara xewee doo mën a dem fenn è vero. Il conducente coinvolto in un incidente stradale per la denunzia nga xam ni dafa bokk ci ab léegi nag accident boobu pour mën ko dinun caare assurance am. mën naa utiliser rek module boobu nga xam ni euh, assurance am moo koy jox am na benn module boo xam ne dañ la koy faral di jox nga bàyyi ko si oto bi bu accident amee te garaaw au lieu nga ni woo pour policier wala carabinier yi mën nga ne génne seen module boobu remplir ko bu ko defee ku ne dem boo demee jox ko sa assurance è vero I conducenti di veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, sono più visibili in distanza. mu ne conducente chauffeur yi dawal véhicule a due ruote borom ñaari pneu yi comme ay motociclo wala ciclomotore avendo una ruota sagoma frontale mu ne comme ñoom seen oto seen véhicule seen moto dafa dafa sew lool dafa sew ci kanam sono più visibili in distanza moom buñ soree ñoom ñoo gën a neex a gis par rapport ak yeneen véhicules yi e ñoom ñoo gën a neex ñoo gën gis du in caso di pioggia occorre ridurre la velocità. mu ne bu dee taw da nga war a ridurre da war a wàññi vitesse bi è Se si deve circolare con veicolo a due ruote su una carreggiata a circolazione promiscua veicoli barra tram, è se possibile circolare con entrambe le ruote nel solco della rotaia del tram. mu ne bu fekkente ni da nga a circuler eh, ak véhicule bu ñaari roue comme pneu motocycle wala cycle motore ci carreggiata boo xamante ni eh, dafa am circolazione promiscua mooy foo xam ne tram ak véhicule dañ fiy circuler mu ne day baax yow nga jël ñaari pneu yooyu entrambe le ruote ñaari pneu yi. dugal ko ci sal ko del de la rotaille del tram maanaam fii tram bi war a jaar ak i pneu am raay bi mu ne nga jël sa ñaari pneu moto dugal ko foofu è falso Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia completamente fermo. mu ne bu fekkente ne da nga war a yëgal wala nga war a wàcce ab passager ci véhicule bi comme nga gis ko war a yóbbaale taxaw pour jël ko wala nga am ku ne ci biir nga war ko wàcce mu ne danga war a daa a xaar moom ba oto bi taxaw carrément mu soog a yéeg mu wàcc è vero su strada sdrucciolevole per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenata è opportuno premere a fondo il pedale del freno mu ne ci strada boo xam ne sdrucciolevole mooy strada bu ratax mu ne bu fekkente ne da nga bëgg a am maanaam migliori condizioni di aderenza maanaam aderenza contact bi pneu bi amee goudron bi nga mën ko am bu baax boo freiné bu mën a taxaw taxawaay bu gaaw est opportuno premere a fondo il pédale del freno mu ne day e baax nga bës frein bu baax a baax è falso il passaggio in velocità su tombini o rotaie del tram a bordo di un veicolo a due ruote può far perdere tenuta di strada e dirigibilità al veicolo, causando sbandamenti o cadute. mu ne jàll jaar ci kaw tombini tombini mooy e regaar yi ne ci strada bi ci karajaata bi wala rotaay mooy e fi tram bi jaar ak i pneu boo ci jaaree ak vitesse bu bari mu ne mën naa tax nga perdre euh, dirigibilità al veicolo véhicule bi mu nga dem ba dootoo ko mën a orienté nga perte contrôle te loolu mën naa indi sbandamenti mën naa tax mu déraper mën naa tax yow nga daanu è vero In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio in folle. mu ne boo nekkee ci diggante boo xam ne ci strada bi dafay gàccaatu maanaam dafa am glace day baax nga doxe cambio in folle maanaam nga def point mort et falso cambio moom Euh, seetlu naa ni ci kit si yëpp foo ko fekk rek man nga def falso parce que baaxul. Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della ne pannello bi ngay gis nii ci image bi euh, mu ne euh, il pannello in figura obbliga a tornare obligé nga dëpp ci buntu galleria bi è falso maanaam boobu day day wax ni rek bu fekkente ni galleria bi dafa lu fa lu fa xew. kii da lay orienté da lay indiqué rek mais nekkul ni boo gisee rek naa war a dëpp beneen bi. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno frenare energicamente ogni volta che si incrocia un altro veicolo. mu ne boo doxee ba egg ci diggante boo xam ne ci strada bi tratto di strada mais diggante boo xam ne ci strada bi dafa ghiacciato dafa am dafay baax nga freiner énergiquement nga freiner ak doole. saa soo xam ne daje nga ak yeneen véhicule in crociare un autre véhicule mooy nga daje ak yeneen véhicule mu ne defee rek da nga war a doole bu baax a baax loolu nag falso la. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno distanziarsi dalla traiettoria dei veicoli che si incrociano. mu ne boo nekkee ci diggante boo xam ne ci strada dafa am glace mu day baax nga trajectoire bi nga xam ne moo dox si yi nga dajeel comme yow yaa ngi dem am na oto yu dikk. seeni trajectoire na am distance maanaam bul sës oto yooyu parce que mën ngaa dal seen kaw ndax surtout surtout boo nekkee foo xam ne dafa am glace nga xam ne oto bi mën naa déraper dal seen kaw è vero causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie mu ne bokk na ci loo xam ne day faral di di accident te mu jóge ci strada bi niñ ko sud nuñ ko structurare niñ ko liggéeyee te nee na loolu mooy strada boo xam ne dañ ko xaaj def ko ay corsie è falso In caso di pioggia occorre frenare energicamente. mu ne bu dee taw da war a freiner energicamente ak doole è e falso. Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote è comunque concesso di circolare. mu ne ci strada bi nga xamante ni dañoo war a monter ay catene ay ay ci pneu yi bu dee neige bu dee neige in caso di nevicata bu dee neige mu ne chauffeur ñi dawal veicolo a due ruote lu ci mel ni motociclo wala yu mel noonu mu ne ñoom mën nañu circuler comunque è e quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, è bene farlo in impennata in modo da non farvi transitare sopra la ruota anteriore che è quella direttrice. mu ne bu fekkente un giorno di pioggia jour boo xam ne day taw si demee transitare su rotaille del tram nga war a transitare nga war a jaar ci kaw rotaille tram fi tram bi war eh, a jaar nga war faa jaar e benn farlo in impennata mu ne da ko war a tóoj impennata mooy borom vélo yi xam nañ ko tóoj vélo moto bi pneu kanam nga yëkkati ko ba du laal suuf il modo da non farvi transitare sopra la ruota anteriore che è quella direttrice bu ko defee nag pneu kanam bi bañ a jaar ci kaw rotaayu bi ndax moom moo lay diriger è falso In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno non usare le catene, ma gomme chiodate sulle ruote anteriori. Monet. bu fekkee da ne ci diggante boo xam ci strada bi dafa am ghiaccio dafa am glace ghiacciati mooy dafa am glace et opportuno non usare le mu ne jarul ngay monter ay pneu ay ay catene mooy ay chaîne ci pneu yi ma gomme waaye pneu yi nga xam ne dafa mel lu ay pont moom nga war a def ci pneu kanam yi moom nga war a monter ci roote kanam yi è falso. Il fenomeno dell'acquaplaning fa scivolare le ruote sullo strato di acqua. mu ne aquaplaning dafay glisseloo pneu yi ci taataam ndox. stratodia quoi mooy foo xam ne ndox dafa taa et vero parce que aquaplaning mooy foo xam ne ndox dafa ne nga ñëw ak oto bi yenn vitesse da ngay mujj perte contrôle ndax pneu oto bi day glisser et vero. I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti. mu ne tamponamenti stradali mooy bëkkante ci strada bi avvengono li koy faral di indi principalmente rawatina li koy faral di indi bokk na ci euh, la disattenzione dei conducenti chauffeurs yi seen ñàkk concentration. ñàkk bàyyi xel tali bi ñàkk bàyyi xel li ngay def mën naa indi tamponamento mën naa indi bëkkante ci strade bi è vero. Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato. mu ne rotaay tram rotaay mooy raay raayu tram bi fi tram bi war a jaar mu ne sono particolarmente pericolose ñoom dañuy dangereux yenn saa yi dañuy pericolose pour circulation véhicule à deux roues moto yi dañ ko war a moytu bu baax a baax jamono rawatina nag bu fekkente ni. dafa tooy comme tey muy taw ndox mi ak feer bi boo freiné ci kaw mën ngaa daanu è vero I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza. mu ne bëkkante ci strada bi maggiormente gën kaa bari li koy faral di indi mooy bu fekkente ni yow doo respecté distance di sicurezza è vero ndax bu fekkee ne oto bi ne sa kanam da nga ko sës bu ëpp bu taxawee rek nga dal ci kawam. Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga, senza che sia visibile a distanza, un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi. mu ne booy attraversare incrocio booy jéggi ab croisement si deve sempre considerare toujours da war a bàyyi xel la possibilità possibilité so sopraggiunga senza che sia visibile a distanza nga bàyyi xel ci ni mën naa sopraggiungere mën naa dikk eh, sans yow nga gis ko fu sori eh, véhicule à deux roues bu boo xamante ni. dafa sorpassaari woon yeneen véhicule et vers yow ba ñëw ci croisement bi bàyyi xel koo xam ni mën ngaa jékki-jékki rek mu taxaw sa kanam mën naa nekk di sorpassaare véhicule boo gistoon mu ñëw rek taxaw sa kanam kon nga bàyyi ko xel et vero In caso di pioggia occorre utilizzare, durante la marcia, la segnalazione luminosa di pericolo quattro frecce lampeggianti simultaneamente. mu ne bu dee taw bu dee taw occorre utilizzare da nga war a utiliser durante la marcia jamono ji nga xam ne yaa ngi dawal. la segnalazione luminosa di pericolo mooy quatre flèches yi lampe jaare yi nga xam ne dañuy fay ak tàkk et falso bu dee taw rek jarul jarul signalé am na ay cas yoo xam ne boo fa eggee da nga koy da nga koy utiliser waaye du sempre. dopo un incidente stradale è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede. mu ne ginnaaw bu accident amee ci strada bi dafa obligatoire subito nga déplacer véhicule bi yóbbu ko ci marciapiede bi et falso ndax véhicule bu accident amee li ñuy wax mooy. li gën mooy ngeen bañ laal dara ci véhicule bi bu ko defee ñi def constat bu ñëwee mën a xam lan moo xewoon ak lu indi accident mais bu amee rek nga déplacé ko da ngay daal di jaxase lépp ba bu ñëwee duñ xam ku tooñe ku tooñul kon falso la. su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata. mu ne ci strada bu am ad eh, innevata bu am neige véhicule bi li mu fay am comme adhérence contact bi mu fay am moo gën a tuuti par rapport ak strada bu am glace et falso. Percorrendo un lungo tunnel, l'ottaforo, in caso di incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco. mu ne bu fekkee da ngay percorrere da nekk di daw ci biir tunnel te tunnel mooy galeria mooy mooy mooy mburgal boo nekkee ci biir di daw wala traforo ñooyam rek mooy tunnel rek bañ a bañ a xóotal in caso di incendio bu fekkee ne dafa am luy lakk ci biir maanaam dafa am luy tàkk ci biir. bisogna seguire la segnaletica di emergenza mu ne da nga war a topp tableau yi segnale tableau yi moom nga war a topp anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco même bu fekkente ni li tableau yi wax bokkut ak li vigile yi wax mu ne tableau yi nga war a topp è falso vigile del fuoco bu fa nekkee moo ëpp doole tableau bi moom nga war a topp war a topp ay tableau ki segnaletica di, emergenza causa probabile di incidenti dovuti alla struttura mu ne bokk na ci li nga xam ne day faral di indi accident ci strada bi euh, euh, strada boo xamante ni dañ ko structurare dañ ko liggéey daal di koy xaajale def ko ay carreggiata e falso ndax loolu bu amee day tax mu gën yaatu rek. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose. mu ne bokk na ci loo xamante ni day faral di indi accident te muy jóge ci strada euh, boo xam ni ni ñu liggéey strada bi. mu ne bokk na ci ku foo xam ne amul ay courbe précolossé mu ne bu amul courbe précolossé rek day indi accident déedéet bu fekkee amul courbe précolossé kay loolu kay baax na du indi accident è falso Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di incendio, bisogna abbandonare velocemente il veicolo, seguendo la segnaletica che porta alle vie di fuga o i luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco. mu ne bu fekkente ni da nga dugg ci tunnel bi wala traforo bi in caso di incendio bu fekkee daa am luy lakk ci biir luy luy tàkk loo xam ne dafay incendio bisogna abbandonare abbandonare velocemente il veicolo mu ne da nga war a abbandonare da war da nga war a wàcc véhicule bi lu mu gën a gaawee seguendo la segnaletica che porta alle vie di fuga topp signal bi nga xam ne moo lay yóbbu ci bunt yi nga xam ne mooy tax nga mën a rëcc nga mën a génn ay ai luoghi sicuri protetti da porte dalle foghe wala am na ay buntu yoo xamante ni ay bërëb yoo xam ci duggee daa am bunt boo xam ne boo xasee bu xasee ba tëju rek lu mën a xew ci tunnel bi du la fekk ci biir è vero Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce se occorre ricostruire la dinamica dell'incidente. mu ne chauffeur bi nga xam ne dafa bokk ci ab accident comme ni mu def accident keneen mu ne daa war a fexe ba kenn kenn euh, daa war a éviter ba ñu bañ a modifier tracé yi mooy li nga xam ne moo xew la kaduuta maanaam Euh, accident bi am na bëkkante ga ak nit léegi moom mu ñëw léegi day déplacé am déedéet bañal nañ xaar ba policier yi ñëw bu fekkente ne policier war nañoo ñëw def constat mu ñëwee gis affaire nu mu demee mais bu ko déplacé rek bu ñëwee duñ xam kan moo tooñ ku tooñut kon yow da nga war a éviter mu modificare le tracce. In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia. mu ne bu fekkee nebbia fitta dafa am maanaam brouillard dafa am. day baax nga taal luce postérieur di ne berne bi mooy lampe yi nga xam ne mi ngi féete ginnaaw pour pour brouillard anti brouillard yi è vero il fenomeno dell'acquaplaning inizia a velocità più bassa se il pneumatico molto consumato mu ne aquaplaning bu fekkee say pneu dafa xoosu bam ëpp même boo daw ndànk sax man nga ko def aquaplaning mooy nga perte contrôle dem ba oto bi mënatoo ko contrôler ndax ndox mi è Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori anabaglianti anche di giorno. mu ne ci circulation ci strada pour ñu mën leen seen bu baax per rendre si majormente visible pour man ñu mën leen seen bu baax borom motocycle yi dañuy war a taal seeni luce anabaglianti même bu dee bëccëg la e vero Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, a porre il segnale mobile di pericolo in prossimità del veicolo. mu ne ginnaaw bu accident amee euh, ci strada bi mu ne dafa obligatoire ci guddi bu dee guddi la mu ne solo di notte nag guddi rek nga jël signal mobile di pericolo bi euh, teg ko ci wetu véhicule bi è falso. In caso di nebbia fitta è opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata, se non per cause di forza maggiore. mu ne bu dee taw eh, in caso di nebbia bu dee bu fekkee day brouillard eh, day baax nga bañ a tax éviter eh, nga moytu taxaw ci carreggiata bi bu dul loo xamante ni ñàkk bu dee boo amul boo amee pexe boo amee pexe fexeel ba oto bi nga bañ ko bàyyi ci carreggiata bi waaw bu fekkente ni mën nga ko faa jëlee moo gën parce que brouillard kii ñëw du la gis è Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale deformato. mu ne bokk na ci loo xam ne day faral di indi accident ci strada bi te muy jóge ci strada bi ni ñu ko strutturaale ni ñu ko liggéeyee mën naa nekk euh, fondo stradale bu deformato maanaam godron bu yàqu tali bu yàqu è vero. In caso di nebbia fitta è opportuno fermarsi, se necessario, fuori dalla carreggiata. mu ne bu fekkee brouillard dafa am booy taxaw li gën mooy bu fekkee mën naa nekk. nga taxawee foori kare jaata nga wàcc kare jaata bi ndax lu tax brouillard oto yi sa ginnaaw duñ gis bu baax mën nañu dal sa kaw. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione se il veicolo ne è provvisto. mu ne boo nekkee ci diggante boo xam ne ci strada de am glace è opportuno innestare day baax nga dugal innestare mooy nga dugal la doppia trazione lu ñuy wax lu ñuy woowee doppia trazione se il veicolo ne è provvisto am na ko am na oto yoo xam ni 4 x yi par exemple. dañuy am doppio traction quatre pneus yëpp dañuy lëkkaloo ak moteur bi nga xam ni pneu kanam yi bu duggoon ci glace gi pneu ginnaaw yi mën nañ ko génne pneu ginnaaw yi bu duggoon ci glace pneu kanam yi mën nañ ko génne léegi nag boo nekkee foo xam ne fa am glace pour oto bañ a taxaw day baax nga dugal doppio traction bu fekkee véhicule bi am na ko è vero. su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo. mu ne ci strade boo xam ne dafa am neige bu fekkee véhicule baa ngi déraper mi ngi sbandaare occorre frenare a fondo mu ne danga war a bu baax è falso Circolando su un veicolo a due ruote con fondo stradale bagnato, la frenata è particolarmente pericolosa se le ruote del veicolo sono su rotaie del tram, strisce pedonali o tombini. mu ne bu fekkee da ngay circuler te fekkoon nga yore véhicule à euh, te fekk goudron bi tamit tooy comme mu taw ba pare mu tooy fre frenata bi mi ngi dangereux mi ngi gën a dan mi ngi gën a am danger bu fekkente ni. fi nga freiné yaa ngi freiné ci euh, rotaay del tram mooy raayu tram bi wala strisce pédonale mooy pédone fi ñuy jéggi tali bi wala tombini regard yi nga xam ne ne ci strada bi e léegi mbokk yi def nañ 40 demandes yi euh, ñu dem xool résultat yi day faral di am publicité ñu ko may waa def nañ ko zéro faute quarante demande euh, quarante yëpp lañ trouvé euh, léegi ñu def ko ci dix huit minutes quarante cinq secondes léegi fi dinaa fi taxaw tuuti ci temps bi di wax ni rek quiz yi bu fekkee da nga bëgg mu amal na njëriñ boo koy def na nga jël sa temps piano piano bul yàkkamti demande bu ne gis nga ni ma ko doon migré ak ni ma ci ni ma koy tonte man yàlla dogal na dama ko maîtriser mais ki nga xam ne xamagu ko war nañ cee taxaw boo diiree demande bi taxawal parce que am na pièces yu yoo xam ni. Euh, boo defoon ndànk rek mën na laa daane buñ dale buñ ñëwee sax ci leçon bi mën nañ ca gis benn par exemple xaar leen ma xool naa pause bi xool leen ci benn ba woon leen ko waaw ñu jël exemple ci demande bi demande bi mën naa daane kenn parce que dafa wax ne su una strada innevata si strada bu am neige l'adhérente del veicolo è minore che su una strada ghiacciata mu ne véhicule bi foofu lay gën a néewee sa par rapport ak strada boo xam ne dafa am glace xam nga li falso laa def ndax euh, da nga wax ni neige moo glace ñoo yem amul problème mais genre question yi rek boo ci deful ndànk rek mën na laa daane kon mbokk yi ñu yemale ko fi beneen yoon incha allah jërëjëf.